rajim bisimilahi rahmaani waaw mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar bu baax mu mel ni su ngeen gisee jataay bii rek leen na ko waral te mooy te mooy guddig maam Cheikh Ibrahima Fall gi nga xam ne ni moonu dajale fii muy ñaar fukki fan ci weeru koor di ci santaat Serigne Touba baax a baax ci bis bi mu mel ni kon léegi rek la Baye Fall yi daaneel zikkar si ndax ku ne Cheikh Ibra ne zikrullahi mu tombeek ñaar fekki fan ci weeru koor ñu jàkkaarloo ak Serigne Gunda Fall mi nga xam ne nii moo fiy sëtub maam Serigne Fall ci dëkk bi nekk royukaay ci liggéey bi nekk jëmm joo xam ne ni ab soññe la ci liggéey bi feggoog jëwriñ maam Thierno Mar ak Serigne Alia Lo moom sëñ Basirou Lo feggoog jëwriñ Mortal Sall ak mbooleem mbokk taal bi fi teew yëpp ci njiital euh, jànkatu xasida yi sëñ Baye Cheikh Diène kon dañuy jox sëñ Gunda rek sëñ Gunda di la ziyaare baax a baax ci bis bii nga xam ne ni mooy bésub maam Serigne Fall ñu di la ci ziara di la tatagal di la di laaj rek sëñ bi bis bi yëg-yëg gi nga ci am ak soñé bi nga ci def mbokk taalibe yi. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk taalibe yi ñu ngi nuyu bu baax di ziar ginnaaw bu ñu ñaanalee Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal sëñ Amdi Modou Mbenda ak mboolem njabootu sëñ Tuubaa mboolem njabootu Cheikh Ibra di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi sëñ Allé Aram Lo mi nga xam ne moo ci jotaay bi. di ci toftal sunu jëwriñ Cheikh Mortala jëwriñ maam Thierno di siyaar mboole mbokk taal yi ku teew ak ku teewul xanaa di sant rek sëñ Abdoulaye <laughs> di xam ne bis bi moom wax dëgg yàlla mbégte rek lañ ci am ndax woote ñu si la daa daa yombul kon xam naa kàddu yi dañ koy gàddal rek di ko def kàddu cant mu doon kàddu yoo xamante ni wax dëgg yàlla mbégte daal lañ ci am ndax euh, yaakaaruñu woon sax na dana demee nii waaye nag mbirum Cheikh Ibra moo demee noonu bis bi nag sabab bi moom ñaar fukki fan ci weeru koor bés bi nga xamante ni mën na ne moo sox yoonu murit kon xam naa mun te ñàkk nii la mel ndax suñ jariñoo ci sëriñ bi rek Cheikh Ibra waaw kon xam naa dañuy gàttal kàddu yi rek jox sëñ maam Thierno mu nuyoo jàllale incha allah ñu wéyal liggéey bi jànkati xasida yi jàng buñ paree ñu daal def samfaal bi xatmu kaal bi tëj ko ci kàttanu sëriñ bi ak jërëjëf Fall jërëjëf Fall kon sëñ maam Thierno yow itam ñoo ngi lay ziar baax baax di sàkku rek nga joxal ñaari baat ci guddi gi rek noo ko yëgee ndax ni ko sëñ Gunda waxee rek daanaka léegi njàngum xasida mi tàmbali te yéen yéenay jëwlin dafa ngeen soññee ñaari minute rek ñu tàmbali njàng mi incha allah waaw bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulil karim wa man itamu ihsan ila yawmil ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba mi suñu yaakaar tey ak di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi ko di ñaanal sëñ maam Cheikh Ibra Fall sunu jàmbaar ja sunu borom fayal ñu ko bis bii nga guddi gi nga xam ne moom lañ koy taxawal muy guddi goo xam ne képp ku ne war na ci def loo mën ak lu mënul ndax maam Cheikh Ibra wax dëgg yàlla ñu ñëpp amee nañ ku njukkal. waaye nag di siyaar baax sëñ Gunda mii nga xam ne si moo fi tooga toogaayu maam Cheikh Ibra di ko oyof di sëtu maam Cheikh Ibra boo xam ne ñu bari sax yeex nañ koo ràññee dëkk mi ndax oyofam akuk akuk taalubeem akuk bëgg baax moo tax it bis bi xëy na daana daana daana doxe nu ne daana daana ko taxawal nu mu nu mu gën a rafete waaye ren ji da cee rawati ndax yéena bu ci nit ñi am ginnaaw maam Cheikh Fall ci moom mi ci doxinam mu taxawal ko taxawal bu rafet di ko ñaanal tamit suñu borom bàyyi ko ci suñu kanam mu yàgg lool ba li mu yéene liggéeyal maamam suñu borom defal ko ko di ko ñaanal bu baax a baax ndax moo yàlla jàmbaar la ak mbokki Baay Faal yi àndal ci biir dëkk bi yëpp wax dëgg yàlla di <laughs> sëñ Alla loo Lo moom mu ñëw fii ci dëkk bi seet suñu chaque année mu koy def wax dëgg yàlla di ko oyof moom it ku baax di ko ñaanal moom it suñu borom defal ko sutura ba li muy dox ci liggéey sëñ Tuubaa suñu borom defal ko lu ci gën a kaw njortam di siyaar suñu jawri sëñ Mor Talla Sall ak mbooleem ñi seq liggéey bi yëpp wax dëgg yàlla bis bi moom nii rek lan koy def Sénégal tamit muy jàng alxuraan joxe ay ndogu joxe ay xéewal sikkurulaay ak jàng kuréel xas ngi nii waaj kon bis bi yaakaar naa boo demee Sénégal tamit nii lañ koy defee di ñaan ci barke maam Cheikh Fall mi tax ñu koy taxaw rek yàlla suñu borom sotti sutura ak tawfeex ci dëkk bi bu ko nekk yéene ak xew li nga bëgg ënleef suñu borom jàpp dal ko ci barke xas day wax du yàlla bis bi moom macha allah kon nag ñi ngi ñaan ci barke maam Cheikh Fall suñu borom suturaal mboolem julli yëpp ak jaam yëpp ci barke xas day ku nekk aaji boo fi andi rek suñu borom faj ko wéradi goo fi andi suñu borom saafara ko faj aaj yëpp ci barke weeru koor ci barke maam Cheikh Fall mi tax ñu ko kon nag sëñ yaakaar naa bis moom noonu ñu ko waxee rek la kon ñu ñaan rek lu ñu fi ñaan suñu borom nangol ñu ko ci barke maam Cheikh Fall waaw. jërëjëf sëñ mu mel ni jëwriñ moom bëggoon nañ koo jox kàddu gi waaye mu ngi ci njàngum alquran ji te bu maam Thierno waxee rek day mel ni waxaleel na jëwriñ Mor Talla Sall te bés bi Cheikh moom ku koy defal bés rek alquran jiitu ci ak jàng xasida kon daa mel ni sëñ bi wax na lépp dañuy jàng rek euh, commencé njàngum kuréel bi suñu noppee bay tëj xatma bi xëy na danoon jox kàddu jëwrin mu sant euh, euh, soññee comme ni ñu ko waxee rek bés bi moom yàgg nañ koo taxawal waaye nag ren def cee gën a fawxa loolu nag dara waralu ko loolu taalibe yi xër gi am ci jëmmi maam Seeraam Fall ji waaye doxuk sëñ Gunda mi nga xam ne moo fi nekkal maam Seeraam Fall kon Fall ñu ngi lay ñaanal taxawaay bi yàgg doole maam Seeraam Fall nga woote at yu bëree bëri ñu ànd kook yow ci barke suñu Tuubaa